tasaaluuna bihi wal arham inna allaha kaana alaykum raqiba yaa ayyuha alladina amanu ittaqu allaha wa qulu qawla diida yuslix lakum acmalakum wa yaxfir lakum dunubakum wa man yutillaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima amma fa inna asdaqa alxadisi abullah wa xayra alhadyi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa charra al umuri muxdataatuha wa kulla muxdasatin bidaa wa kulla bidaatin dalaal wa kulla dalaalatin fi nnaar ayuha al kiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu gannaaw jiitalee sant suñu borom julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam di leen ndokkeel di ndokkeel suñu bopp ci weer bu mag bi nu nekk di sant suñu boroom bi nu may nu mën a dajawaat fii ci biir weer bu mag bi ngir di fàttalante euh, bunt waxtaan yu déggee ak ni ngeen ko gisee ci këyit yi mel nañ na wuute waaye sax amul wuute ndax li ñu bindoon moo ay affaire fan lanu toll li suñu dund alquran loolu nag jàpp naa ne bépp bu ñuy waxtaanee ci diine rek mat naa naa tontu question boobu ndax li koy def ci diine ci alquran nga koy jàpp point boo ca waxtaane mën nga caa gisaale bopp ci foo toll ci dundu alquranul karim kon bind bi ñu bëgg a xool xam nun fan lañ ci toll ci alquran bind boobu dañ ci xaswatu badr al kubra xam ngeen ne xaswatu badr ay xew-xewam alquran daf ko nettali lépp kon waxtaane ko waxtaane alquran la su dee suratul anfal saan lépp ci mbirum badar lay wax kon alquran ñu bëgg a waxtaane xew boobu seet itam lun ci mën a jële ci ay bind yoo xam ne dafay jariñ ci sunu dund ndax alquran loo gis mu enregistré ko xew-xew bu mu enregistré di ko netwaat day tere ay leçon nga ca yoo ne mën naa ko lañ xeet bi bu fekkoon ci xew-xew bu xewee rek layam du ko nettali loolu sax sooy gis alquran di nettali sa du nekk détaillé yëpp waaye point yu sensible ya nga xam ne ñoo xet nga xam ne mën ko di ko jariñ yooyu la alquran di tudd kon alquran lu mu tudd rek luy continuer jëriñam ci des la comme ni fi alquran defe kon xew-xew boobu buñ ko waxtaanee caa mën jële ay bind war nañ caa mën a jële ay waaw bind yoo xam koy jariñ fii nu toll tey fi xeet bi toll tey ci wàllu tënku ak wàllu jafe nga xam ne ñëw lool ak fa mu jamono booba xew-xew booba di am kon su na paree la tënki woon xeet ba ca jamono booba war noo mën a jële ay bind yoo xam ne dana mën a tinki weer wi ci mu toll ci tënku gi mu tënku xam ngeen ne ci ay at gannaaw mas nañ fee waxtaanee al jihaad waaye ñi nga ne woon rek eh, al jaanibu nazari muy ko théorie bi ni mu tëddee ak waaye tib bi nag nu ñu koy jëfe nag waxtaanu tey wii euh, dana ci joxe misaal comme waxtaan woowu nga xam ne euh, jiitu woon na al jihaad tem doon baat boo xam ne ñu dul di dañ koo ragal lool ba sax ragal woo ko la ci jullit ñi ñu ragal baatu jihaad sax di ko wax wala ñu ci diine ji la bokk te mu loo xam ne waxuma ne ci diine ji la bokk waaye mën ngaa wax moteur bii doxal diine ji te nag du lislaam rek moo ko am mais lépp loo xam ne bëgg nañ koo saxal ci kaw suuf mu sax il war naa am wet dëgër goo xam ne moom lañ koy wet état boo dem day am wet ngir aar boppam kon lépp loo xam ne lu samp ci kaw su am projet société boo xam ne moom la bëgg a doxal boo xam ne du ñëpp ñoo cay ànd wala sax li ëpp ca nit duñ ca ànd war naa am wet gu muy aare boppam war naa am itam doole ju muy randale gàllankoor yi ñuy teg ci kanamam loolu mooy al jihad ba na yonente bi alayhi salaatu xam ne lislaam daf ne rasul amri al islam daf ne diine bopp bi mooy nga dugg islam loo mën a def ci diine te duggoo ci lislaam waxoo baati al shahadan bañ leen la julit loo mën a defee du tekki dara ak jëm amul bopp bu amee tànk ay loxoog yépp te amul bopp du tax mu dund du tax mu dox moo tax mu ne rasul amri mu ne nag bi ko téye bi ko téye nag mooy mu ne wa zirwatu sinaami al jim fi mu ne nag sommet ba nag fa ca gën a na mooy jihaad fi sabilillah kon jihaad ko génn moo xam ne nit ñi dund nañ ko wala dunduñu ko te dundul yeneen yu bari yuñ bëgg a dund dutuñ ko mën a tey dund na mu waree. boo gisee ñu war di nettali xew-xew yi weesu woon mooy ne xeet wu nekk su bëggee kone il faut di fexe ba digganteem ak passé bañ a la weesu woon bañ a waaye bëgg gay du yam ci rek di nettali xew ya di ko damoo ak ko bàkkoo ak di ña ko doon def te bañ caa jëlee ay bind ak i waaru yoo xam ne dana leen poussé ci ñu jéem a def seen képp kan mënta egg foofa itam xew-xew dafa bokk ci xew islaam yi fees dell ak i bind ak i waaru ni ko alquran détaillé détaillé leen xeex boo xam ne am na ci lislaam comme ni ñu koy waxtaanal la du ñu yitteel lool lool sax ni ma ko waxee détaillé xissa ba yépp lañu aju ci ay détail ndax lu ca bari mbokk yi yàgg nañ koo dégg waaye ral lu ñu ca mën a ci ay bind ci ay point yoo xam ne am na ca biir xissa ba suñu ko nettalee seet leçon yañ ca mën a jële ñu mën koo dund ci suñ dund bii nuy dund tey xam ngeen ne lislaam li ci xeex boobu di am ni ma ko waxee ne dafa nation bi mu nekk dañ koo jàppe woon rek mbirum ay nit yoo xam ne dañoo génn lu nit ñi miin maanaam nit ñi dafa amul lu leen réalité bu ñu xam ñoom ñu créé leneen loo xam ne loolu la lu kenn xamul bëgg a juyoog nit ñi te xam ngeen ne booba ak jaahiliya ak certo lañuy ñuy dund di jaamu yaram di jaaye doole di topp ay bànneex loo bëgg a def def yonente bi alayhi salaatu wasalaam suñu yónni ko mu andi diine yi lislaam diine joo xam ne day digle jaamu benn wéetal borom bi tabaraka wa dafay digle jokk ak bokk dafay tere tooñ dafay digle ak dimbalante dafay xam la ne doomu adama sañu la yilif moroomum doomu adamaam di ko jaarale ci bànnee xam waaye doomu adama benn boor la am muy borom bi tabaraka wa taala loola wuute lool ak la miinoon ak ni mu nuróowaat ak ni mu mel ci tey xam ni ne lislaam fi dañ koo jàppee lu exceptionnel lu raar loo xam ne dafa wuute ak li nga xam ne moom la nit ñi miin ñu jëlit loo xam ne ñu koy def mën naa du sax lu jublu dëgg-dëgg mais dañ koy faje aw naqar rek xëy na ay nit ñu néew doole ñoo dem dajalool teg bëgg kon compte leen yilif mën naa am loolu la ci jublu mais sax du ay principe yoo xam ne dafa am lu war a réaliser wala mu am programme waaye révolution la rek loolu moo tax bind bi ñuy njëkk a jàng ci xew-xew bi mooy xew-xew bi wëlbati ne gisiinu nit ñi ci lislaam wëlbati ne gisiinu jullit ñi ci seen bopp sax nga xam ne dugg nañ ci biir lislaam wëlbate seenu gisin wala gën na al gën na koo dëgëral gën na koo confirmé comme ni mu wëlbatee gisinu ñi nga xam ne ñoo ko contrôle nekkoon ay yëf bu dee jullit ñi gën nañoo lislaam léegi du mbirum benn nit rek boo xam ne daf koy neex mu nekk ci di defaa pam waaye nit ki dafay war a seey ci biir mbooloo ànd ak mbooloo ma défendre diine ñu yëg ne diine ji du moyen boo xam ne nit ki daf ciy jaar pour réaliser ay int parce que ñu bari tey léeg-léeg noonu lañ koy gisee da nga ciy nekk rek pour faj say intérêt comme nekkoon nga fee ab jaam boo ci newee dootu nekk dootoo nekk ab jaam nekkoon nga ku ñëw boo ci ñëwee kenn du la xeebati nekkoon nga ko ñàkk boo ci ñëwee mën ngaa am ndax dañuy dimbalanteeg yow waaye ñu xam ne li loolu biir waaye loolu rek taxu ko jóg waaye principe yi moo fara kaw intere yi dañu war a sacrifier ay intérêt pour garder principe yi mais duñu sacrifier principe yi pour régler suñuy intérêt dangaa sacrifier wu tàmbali bakkan sa alal sa dara ngir garde ko li nga xam ne ne ci bi ñoo xam ne kon principe bi moo fare kaw nit ñi l'islam bi moo fare kaw nit ñi waaye du nit ñi ñoo ko fare kaw loolu ci la ko jullit ñi gën a xam ne yolaat nga sacrifié wu mais kenn du sàkk diine ji yow pour yow kon dégg boobu naa xóot ci jullit ñi ci xare bi gën na ko wane ndax lu koy tu dëgg la leen lor kenn par kenn léegi la ñu jàpp nit mbugal ay mbo ay mbokkam wala ña ko yilifoon su ko defee ñu di ko yërëm ak di ko dimbali yonente bi sallallahu alayhi wasallam di wax gàddaay leen mais la daal ñi ngi lay jéem a tegil coro bi nga xam ne koy daj dëj ba nga par jàpp ne sax kon mbir mi ku ci dugg coono boo ci am daal da ngay yërëm tam dañ lay yërëm ñëpp war a taxaw ci sawet di la soutenir ñaareel ba yéefar yi ñoom it xamee ne kon woote lislaam bi ndeke lu lawu la du la mbir mu romb di jàllat waaye benn procédé société la boo xam ne dañ koo bëgg a dund du benn réew boo xam ne dafa gaar rek ngir aw naqar wu ñu am ngi ñu bëgg koo réglé bu naqar wa réglé woo ñu dellu siwaat ci biir nit ñi ci lañ leen nekkee affaire bi détermination ñii dañoo am détermination ci li ñu nekk waaye ñu ñoo xam ne mënees na leen dellu ci biir société bi nga xam ñu génne société bi kay moo leen di fekk bind boobu euh, xare bi wane na ko jullit ñi téere nañ tiire nañ ci yooyu leçon xam ne lislaam kat asmaa la boo xam ne yow yaa ko jël sa digganteeg sa boroom te la jiitu mooy nga joxe sa bakkan ak sa alal lislaam moo la ëpp moo ëpp valeur yi def lislaam bi la ëpp valeur kon daa war a bokk ci ñi koy alimenté comme waaye bul doon koo xam ne da jàpp ne yow yaa ëpp valeur islam bi l'islam bi moo la war a dundal moo la war a régler say problème ñaareel ba yëf xam ne kat lii mbir la moo xam ne ñor na ñi koy taxawee ndax mbir su demee ba jaral boroom ñàkk bakkanam jaral ko di xeex ak ay mbokkam di ca rey ñuy rey ci moom ah kon mbir mi léegi duutu mbir moo xam ne mu ñu mën a yamale la xale bi ci weemaadal ula ñu koy wax rakkaat ci gàmm ci atom ñaareel ci gàddaay gi ci la yonente bi alayhi salaatu wasalaam génn ànd ak ñaari téeméer ci ay muhun ngir dogale ji njëggum Quraysh njëgg benn poowan lay doon boo xam ne wàllu koom-koom moo cay nekk ay gëléem yoo xam ne dañoo sëf ay alal loolu la ñu tuddee alaxiir nga xam ni Quraysh muy Makka fi ñu dëkk du réewum mbay liñ daan soxla dañ ko daani Saam moom la borom bi naan rihlat sitaai wa sayf dañ daan voyagé di dem ci jamonoy sedd ak jamonoy tàngoor benn bu ci nekk danañ am marchandise yoo xam ne moom lañuy wuti yonente bi salaatu wasalaam bi mu déggee ne seen couvent boobu génn na mu dem di leen dogale ci ndax it am na ci ndax dañ leen a tooñ génne leen makka ñu bàyyi fa seeni alal kon ñooñu leen su ne kaw nanguwaat alal jooju am ci droit ndax alquran moo ne fa man yaqtada alaykum faadu alayhi bi misli ma alaykum ku dal ci seen kaw tooñ leen delloo leen ko lu tollam leen tooñ du ñu nag place bu ñuy tuddee alarab fa lañ yëgee ne nekke njëgg ma muy couvent boobu di dem dem na booba yoral rek di jëndi marchandise mais jëndeguñu marchandise bi dañuy dem waaye li wuñu alal ji ñu ko dara jënde yonente bi alei salatu wasalaam dellu siwaat madina teewul yebal ay ñu koy déglul ba xam kañ la ñuy dëpp ba mu demee ba ñu xibaar ko ne dëpp nañu muy ñi mu yebaloon ñu koy déglul ñu xam ne kat Sufyaan moom mooy jiite njëg ma te wàññiku na ba diir bu gàtt sax dana yegg si ci barab ba xam ne moom la ñuy tudde badar yonente bi alei salatu wasalaam yi yebal ku ñuy wax talxatu bnu ubaydillah ak saïd bnu sayd pour ñu lu ñu dul ko xibaar xibaaru asbiyaat ba xam fan la toll bi ñu egsee ci place al xawra fa la leen abu sufyaan romb yor junniy gëléem yoo xam ne dañ tëf ba mu fees dell mu daal di gaaw ñoom saxaaba yooyu ñu daal di gaaw desi ci yonente bi alayhi salatu wasalaam xamal ko ne Abu Sufyaan wàññi ko mi ngi jàll yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ne haadihi fiiha amwalkum faxruju ilayha laalla allaha an yafilakumuha mu dajale yi ne leen njëggu may si mii muy seen alal seen alal yéen génn leen dem leen ndax la baaxeen ko jox leen ko waaye nag dëgëralul génn gi ku mu neex dem ku mu neex daw néewul obligatoire da yëpp ndax booba dañoo defee am xeexuñu waaye alal ja rek la ñuy dogale ci te alal ja ña ko yor danañ armé sax waaye nag armé wu arab yi xeex ñi armé rek armé garde alal yi ñu yor alal bokk alal ji ñooñu bu ñu dajee ko armée duñ ko mën a dégg ay bandeeg yooyu rek mooy tax ñu koy escorte yonent salaatu wasalaam daal di génn ànd ak ñetti téeméer ak fukk ak ñeent ci ay góor loo xam ne ñaari fas rek moo ca nekkoon ñaari fas rek lañu am ak juróom ñaar fukki gëléem te mat nañ ñetti téeméer ak nangam moo tax dañ ay ay loo war gëléem yi boo waree dañuy wax gëléem ji ñett ko bokk su ngeen waree distance tàngam kenn wàcc keneen war kenn wàcc keneen war ba ba ñuy dem ba ci yonente bi alayhi wasalaam gëléem ji mu yoroon daf koo bokkoo nag Ali ibn Abi Talib ak Abu Lubaba Abdullah ibn Mas'ud nekk li ne kunna li badrin kulla salasatin ala ba'ir mu ne xare bar ñett ñu nekk ñoom kon gëléem mu ne kaana abu lubaaba wa ali zamilay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñooñu ñoo doon àndandoo bi ñoo moomu bokkoon gëlëm bi ne bi yonente bi sallallahu alayhi waree nag ba war a wàcc ñu ne ko laa nahnu namsi ank ñu ne ko déedéet bul wàcc noonu mën nañ la rayee ñun ñu dox mu ne leen ma antuma bi aqwa minni wala ana bi agna anil ajri minkuma ëpp leen ma doole tey itam leen ma soxla tuyaaba wala boobu bi jiit toll na yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu ko bëggee ne ko yow continuer la war mu ne leen ëpp leen ma doole am naa kàttan comme yéen pour dox te itam li ngeen di wut ci tuyaaba ba tax ngeen bëgg a tuyaaba jooju may soxla naa loolu nekk bindu ñaareel boo xam ne mën nañ ko ca jànge itam ci wàllu njiit njiit lay njariñ ca la la mu jiite bu mu ko féetewoo waaw parce itam bokk li mu gën a manqué fi mu ne mooy njiit te kaani kuy jiitu itam moo tax dañ mut njiit ki lislaam daanaka du lu ñuy toog di réunion ko waxtaane melo ko day mat ci rek mu jëkki jëm ñépp nangul ko waaye nag foo melokaani njiit nag nekk ci moom gis nga ko lii kon bokk na ci la ca jiitu mooy bañ a bëgg ay intérêt maanaam soo jiitee dara moyen yi ca nekk bul daal ne maay njiit li kon maa ko féetewoo ab benn oto la ma oto benn kër gi ci sama kër lu ca nekk nga daal ne man maa ko moom maa ko ah melokaani njiit day daal di commencé maa ngi ci gis nga yonente bi alayhi salaatu wasalaam man comme maay chef bi kay mën naa am gëléem spécial goo xam ne moo war waaye gis ko dafa bopp kenn gëléem bi te dafa nangoo wàcc ba wàcc am jotee waaye ñaare bay dégleeg njiit tam day mel ne day soññee rek naan nit ñi def leen waaye mu bëggul ab yool mel na dafa dafa soxlawul la ñuy def koo xam dañ la demal taxaw ñooy liggéey nga ca kergat naan dama leen di taxaw gaa yee liggéey ngay soññe naan damay wala gaa yee def pour am tuyaaba da ngaa bëgg tuyaaba loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ana bi aghna anil ajiba ni ngeen soxlaa tuyaaba laa soxlaa tuyaaba njiit yu bari nag léeg-léeg da leen di xaw a ne ñoom am nañ ko ba pare ñoom dañoo ko ba tax na gaa yi la ñuy wutal fi am di leen soñño gaa yi waaw leen góor waaw leen góor waaw yow de ah loolu itam bidd la war a gàgg loo jiite la ñuy def ca liggéey ba kenn waru la caa jiitu ndax lañ ca soxla war nga ko caa soxla ndax loolu dafa tax gëm ko parce que yow mi ciy soññe ba noppi xeroo ci ñooñu dañuy jàpp rek kat kon mbir mi amewul noonu solo nit mën naa yëgg koo xam ne moom doyootul tuyaaba ji dara kon loolu bind la boo xam ne euh, nañ ko jànge ci taxawaayu yonente bi alayhi salaatu wasalaam rawatina surtout ñuy jiitu parce que li gën a nekk problème na ci jullit ñi rek mooy euh, njiit su njiit amee rek ñi koy topp moom dana daal di jàppandi yonente bi alayhi salaatu wasalaam xare bi mu jox commandement xare bi dara ba xam ne ko xam ne almuhaajiroon ñoo ko jiite na benn commission boo xam ne muhaajir ñoo ko jiite mu jox drapeau Ali ibn Abi Talib ak katir boo xam ne contingent boo xam ne ansaar ñoo ko jiite mu jox daba Saad ibn Muaad ñi nga xam ne fare day jox muy ailier droite bi mu jox seen njiit Zubayr ibn Awam ailier gauche mu jox ko al miqdaad na gis yonent ni mu mënee organiser waaw séddale na bar waa Ansaar yi nii Aliou moo leen jiite waa muhaajiroon Aliou moo leen jiite waa moo leen jiite mu séddale armée bi itam ñaar côté ndeyjoor ak côté càmmoñ ñi nekk ci ndeyjoor ak ñi nekk ci càmmoñ kenn ku nekk itam am ko mu def nag ci gannaaw xam ne mooy nekk ci gannaaw li ñuy tudd ak saaxa xay sub nu abi saaxa moom yonent bi nag mu nekk rek abdul ala lil jaysh mu nekk seef bi gën a kawe ñëpp nag mun jiite waat te ordre la ñuy wéy foofu am na fi boo xam ne dañ fi jàngee organisation parce que l'islam yi ba ci li leen manqué fi mu ne organisation loo wax rek ñu mbir yi daal jàppali basin la rek lépp dana baax daal fawda désordre boo xam ne du ñu jéem a organiser dara xoola yonente bi alayhi salaam mi nga xam ne wax yu gi lay wàcc ci moom direct teewul mu organiser def ko ni nga xam ne noonu la ab armée laaj ba noppi itam stabilité yi parce que itam léeg-léeg jullit ñi dañuy ànd di rek mais kenn ku ne doo xam looy def ku sawar rek tëb def dara te leen nga sawarte lool mais lii ngay def placé woo pour def ko mënoo ko amoo xel mi amoo doon te am sawar bi waaye dañuy dajale ku gën a sawar rek daanaka sax booy far jiite mbir yi ku gën far rek moo fay jëkk moo fay mujj moo lu ñuy yanu moo koy ñu ne ah kooku daal kooku moo koy far jiite fekk na théorie gi ak compétence bokkut dañ ko war a xob loolu dañoo war a seet responsabilité ki xam sa bi ngay taxaw gis nga ni mu ko séddalee kii yaa jiite li kii yaa jiite li kii yaa kii yaa yor li loolu condition la bu mënta ñàkk ci liggéeyu mbooloo bu ñu bëggee réussir parce que mbooloo suñu xasee ba ànd suñu nosewul ànd ba yëgutu ba mën naa lool mais njël mën naa néew kon liñ naan waddu ar rajul munasib fil makaanil munasib moom placé na pour toog foofu loolu lu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ah, jàngale la Abu Sufyaan ba muy ñëw nag jiite njëg moomu mu jiite mooy ayr moom moom ci boppam day day tuub ndax moom itam ku am xel la te xam ne nag comme seen diggante ak yonent bi alayhi salaatu salaam état rek dañu nekk ah te fi ñu romb fi ñuy traversé soriw diina lool lool mu ñaaw njort ci ne daal boo wëtuwul ah bi mën na leen rek moo tax dafa jiitu ji ñëw ba ci benn place boo xam ne dafa fa nekk fu ñu naane la xam nga ñoom comme ay sàmmkat lañ place ndox yi daanaka ñoon doon lieu de rencontre yi man fa la ñu daan dajee bi mu ñëwee tam fa fekk xam ne moo fa ñu koy wax Majd ibnu Amr moom fa la nekk mu ne ko ndax démb wala ñaari fan yi yëgoo fi kenn ñëw mu ne waa ah, seetluwuma fi kenn koo xam ne daal ñaaw ñaati njort lu dul naa ñaari gawar ñaar ñoo xam ne war nañ ñu ndox mi ñu yësal seeni gëléem daldi duy seen gambu ya yor seen defukaay ñu yor ñu duy ko ci ndox mi daldi dem amos daldi ñëw fa ñu yësaloon seen gëléem yi jël ci parey gëléem yi xar ko gis ca tàndarma mu ne ah, waa Madina ñoom ñoo am rama ba ni ko xonte seeni gëléem kon ñii ma jóge gis nga ni ñu amel mu ne kon ñii fi ñëwoon madina la ñu jóge te kon mën naa am Muhammad moo leen yabal pour seet am fan laa taw ngir ñu mën noo rek ca la daal di yoon ba nga xam ne ca la jaaralam ma bàyyi yoon daal di jël yoon tefesu géej daal di dem waaye itam jëmul ci loolu ndaxit mi ngi ragal dee dëgg na bàyyi yoon wi mu jaaroon waaye mën naa am ñu xam yoon wi mu mujj jaar dab ko moo tax dafa dal yile jël ab Dendeb ibnu Amr al-Qifaari fay ko demal Makka soo demee nga yëgal leen ne Muhammad mi ngi dogale kooku dafa dal di jël gëleemam rek dal koy tawal ba mu dégg Makka dafa xuuf bakkanam dal di wëlbati tegu gëleemam parce que loolu arab yi suñu gaafur wane na jàmm xewul ni ñu teg gëleem bi ci kaw dañ koy wëlbati dal di xotti ay mbubb dal di yaa ma'shara quraysh allimatul latima dal di yéene ca penc ma yi waa quraysh musiba am na musiba am na seen alal ya abu sufyaan yoroon day muhammad dañ dogale na ko moo ki saxaabam du ma yàgg mukk ne da ngeen leen mën a sowe alxaws alxaws gaaw leen ngeen xetlu ji leen gaaw leen ngeen xetlu ji leen ko waxee nag ñun ñëpp dal di daal di def mobilisation générale la ñu daal di def Abu Jahl moo ko jiite ñu dal di génn mat junni ak ñetti téeméer ñoo daal di dajaloo fi saa ci ay xeexkat yor tëri fas yor juróom benn téeméeri diro diro mooy mbubb yi ñuy sol mbubbi weñ yi ñuy sol mu di leen protéger yor na yu bari yoo xam ne lim suñu bokk xam bari na moom jiite ah, xam ne ñépp nañ lañu gën aboo lahab moom demul woon te la ko tam mooy dafa fekk am ko yoroon bor lu mat ñeenti junni te koo koo faj mu ne ko comme mënoo maa fay nag ba ci guerre bi yaa may demal ci guerre bi loolu nga may fayee Abu Lahab loolu boo ko cee dem Walid mu Mughira itam doon na sikki sàkka di bañ a dem waaye Abu Jahl moo ko fekk fa mu toog ca Kaaba ga andil ko njaqu suuraay tegal ko ne ko suura ko lii nag mu ne ko jigéen nga gannaaw nu nga dem ci guerre ba dal di mer ne ko man da xam ne man du ma jigéen moom it daal di mobiliser ak ndam daal di waajal xare ba moom itam euh, Abu Sufyaan ba mu demee ba jàpp ne raw na dafa yoraat beneen ndaw fekk ñoom waa Quraysh génn nañ ba pare seen armée bi commencé na génn ba ñëw ki tudde jox fa mu yónnee leen ndaw ne leen da ngeen a génnoon ngir di aar ci seen alal ji léegi nag mucc nañu bay bu ngeen del xarit ñi ci ñëpp xalaat ne daal ko doo war dëpp ak gannaaw la ñu pour aar sunu alal jooju alal ja kon daal amatul sabab ñuy dem di xeex waaye Abu Jahl daal de jóg daal di ne wallahi laa yow atta narida badra ne leen duru dellu mukk li fekk demunu ba badar ñu sax fa ñetti fan di rey gëléem yi di joxe am ñam di nangara jigéen yi ak woykat yi di woy su ko defee arab yépp déggunu dégg suñu génn bi nu génnoon ak suñu mbooloo bi mu yor laata loole yahaboona naa abadan ko defee kenn duutu ñemee ñëpp a ñuy def même Mouhamed sax duutu xalaata di jéem a dogale sunu sunu sunu alal waaye am na xabila de banu zuhra ñoom matoon nañ ñetti téeméer ka leen jiite nekk ku am xel lool ne aboo jaali lii nga wax noonu doon ko def nun daal suñuy alal lañu doon sowe ji alal jaraw nun dañu ñibbi daal ni ku bokk ci xabilaam ci fameem na nga dëpp ñoom ñetti téeméer ñëpp ñu daal di def moo tax junni moo desoon junni lañu woon ak ñetti téeméer waaye ñetti téeméer yi ñoom dañoo dëpp ñoom ñu ngi bokk ci banu suuf ah léegi nag kon génneetuñu pour xeexi waaye dañuy génn ngir tiitaru jaay doole moo tax borom bi naan wala koonu kallasina xaraju min diyaarihim Euh, kalla xaraju min diyaarihim bataran ria an naas gis nga batar dañuy rëy rëylu ak di ngistal nit ñi di wane ne yant wa yasudduuna an sabilillah ak it nag ñuy jéem a baare yoonu yàlla bi jéem a gàllankoor la batu dem léegi loolu mooy cause bi leen tax génn léegi loolu la borom bi nag bu leen mel ne il faut itam kon ci jullit lu ñuy def nañ ko def ci objectif yu leer yoo xam ne dañ cee demul suñu borom ba def ci jaay doole jaay doole nanu génn rek wane suñu force jaay doole ba nit ñi ragal loolu du jubluwaayu jullit moo tax borom bi ne wala takunu bu leen mel na si ne xarajoo min diyaarihim bataran wa ri'a annaas surtout par ah léegi kon Abu Jahl décidé fokk ñu dem Badar campé fa Euh, noos fa ay ñoom suñu ñemee danañ nat ko foofu yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu yëgee lool rek am na xibaar ne moom itam Abu Sufyaan dem na waaye waa Quraysh ñoo ñëw léegi kon léegi du alal waaye ab xeex moo am léegi loolu nag laaj na it ak jaxat ñoom bu ñu daal di delloo Madina ne nu def xeex taxul woon a dëkk waaye alal moo nu taxoon a danañ dëgleef lool boobu sañu fekk leen Madina kenn duutu leen wet ñoom itam bu baax te itam jullit ñi boobaa jógloo leen beneen bés boo xam ne du alal yi day kon day mujj li leen di mobiliser wuti alal dogati boroomi alal rek moo leen mën a mobiliser waaye bu nga leen ci ay nit ñoo xam ne da ngay xeex ñoom dana jafe nga mobiliser leen ci bu ñu dëppoon dellusiwaat beneen yoon ne nga ne leen nan takk xeex déedéet teewut bi mu ne dañuy xeex bi mais lool ci ñenn ñi moo tax borom bi nettali ko nag kama xarajaka rabbuka min baytika bil xaq yàlla moo la génne bil xaq wa inna tanwir muminina la kaarihuun lu bari ci ñu gam yàlla yi bëgguñu yu jaadiluunaka fil xaq dañ doon discuté ak yonente bi naan ko waaw nag ñun alal lañ doon dogale alal ja raw na léegi fu ñu jëmati mu ne yu jaadiluunaka fil xaq ba'da ma yana lam ka annama yusaara ila al mawti wa hum yanzuru mel na ñoo jàll dañuy dee yi dañ leen rek bu ñu ñoom ñëpp dañ leen di leen di ñu def da ngeen ci bëri loolu lañ yaakaaroon ne pour xeex bu ñu ak lim bu néew bii lan lañ maasale benn yoon rek. borom bi ne ko wa iz yaidukumullahu ihda yàlla dig na la ñaari mbir annaha la kopp da ngeen ci am benn mooy ngeen jot alal wala ngeen xeex ak rey leen. waaye nag wa tawadduuna anna gayra za dawkati takunu la yéen nag da ngeen a tànn nooy bi amuli dëkk bi amuli dëkk parce que jàpp bola benn bon fa alal nga rek yëppee rek sa kër loolu dafa nooy dafa yomb boobu ngeen bëgg yàggul boobu wa yuridu llahu an yuhiqa alxaqa bi kalimatihi wa yaqtaa daadira alkafirin gis na kon tawat am na bu ngeen bëgg mais wa yuridu llah am na lu yàlla bëgg li yuqa al xaqa wa yubtila al baatil yàlla dafa bëgg dëgg sax neen gannaaw walaw kariha al mujrimoona doonte naqari na kat gis nga ah doomu aadama doomu aadama rek la fekkum da nga génnoon ngir alal te doomu bëgg alal léegi mu soppiku léegi ab xeet boo xam ne sax préparé woo kon dafay war kenn ku nekk nga waalaat sa foofu itam bi ñu ciy jël ci jëf ji ngay jëf ngir yàlla lu ci cëru bakkan gën a néew rek tuyaaba ja gën a rëy xam nga li ngay liggéey ngir yàlla léeg-léeg bakkan da ci am wàll da nga amaale daraja wala nga am alal wala nga siiwaale ci waaye loolu gën a néew tuyaaba ji gën a rëy moo tax amul tur yi doon am na xayra saati saw takun lakum même ñu nangu seen alal jooju loolu it xeex nañ leen économiquement waaye dafa neex ci bakkan ndax alal jooju ngay yóbbu sa kër dëgg la mettital na yéefar yi dafa neex boroom nag bëgg boo xam ne dana metti ci yow te sax doo ca jëlee alal ndax bu yaa ba day moo tax nag situation bi soppi ko yonente bi alei salatu mu daan def lu nekk da ciy diisoo moo tax mu daal di saxaaba yi daal di diisoo ñoom ñu ne ah léegi kat ngeen ne kon xeex moo nekk ci suñu kanam Abu Bakar daal di jóg wax wax wax bu rafet wane ne daal doom lu mu leen ko rek nga ci Omar jóg wax Miqdaad ibnu Amr daal di wax nag wax dëgër ne ko indi li ma araka allahu fa nahnu maak ne ko demal ci li la yàlla sant soo ngi ànd ak yow wala laa naqulu laka kama qaala banu israila sax du la wax mukk la waa banu israila waxoon Moussa ne ko izhab anta wa rabbuk fa qaatil innaana qaaidun banu israil loolu la ñu waxoon Moussa ba leen naa ne suñu borom nee na ñu dugg ci dëkk bii dañ ne ko demal ak ak yàlla mi la izhab anta wa rabbuk ngeen xeex yéen ñaar fa qaatil waaye ñun fii la ñuy toog miqdaad bi rek la wax loolee waaye dañ leen wax izhab anta wa rabbuk fa qaatila inna ma'akuma muqaatil dañ lay wax ne demal yaag sa borom ngeen xeex nun noo ngi ànd ak yéen xeex ne ko fa wallaka bi xaq maa ngi giñ la yónni ci dëgg soo doxoo nag ñun ba ci place bu ñuy tëddee barkul xibaat muy place bu sori la nee na danañ muñ ba ànd ak yow ba egg ci place boobu yonente bi sallallahu alayhi ne ko wax nga lu baax daal li koy ñaanal waaye ñooñu yëpp muy Aboubacar ak Amar ak Miqdaad moom ñu ñëpp ci muhaajiroon yi lañ bokk te muhaajiroon yi ñooy minorité ci armée bi mu àndal ñoo ci gën a néew ñu ci ëpp ñooy war ansaar te waa ba muy jubóog ñoom ca axa dañ ne ko woon kat bala ñu ngaase di la protéger mooy nga ñëw ba ci suuf boo xasee nekk ci suñu dëkk nag ñuy aare suñuy jigéen di ko aare suñuy gone noonu la ñu lay aare moo tax yonente bi salaam doon tiit ne bootuwul am na droit ci ne ko kat génn nga dëkk bi ah engagé tuñu ñu di la aar ñu di la moo tax bi ñoo ñooñu waxee ba pare téewul mu naan asiru alayya ayuhannas wax leen maanaam yéen nit ñi te am na ñett ñu ba pare boo fekk wala daan la jublu waaye gis nga yor bi alayhi salaatu salaam ci ay tegginam du président naan yéen ñii laa wax am rek naan wax leen ma seen xalaat Saad ibnu ne ko wallaahi lak naka turiduna Saad ibnu Muaaz bokk ci ne ko dafa mel ne nun nga ci jublu de mu ne ko ajal waaw yéen laa jublu de mu ne ko dara de dañuy jàpp nan droit ci bañ a ànd ak yow ci guerre bi ndax nekkatoo ci suñu dëkk ne ko maa ngi wax ci waa Saar yépp di la wax ne faba xay su sit laxatal dara dem fu bëgg a dem wasil xaman sita jóg la neex waqta xam la man sita daggal bu ku la neex waxus min amwalina mat jëlal ci suñuy alal soob wa aqtina ma sita neex joxlu lu la neex nga bañ loo jox loo jël ci suñuy alal moonu gënal la nga fab suñuy alal loo ci jël loolaa nu gënal fuuf la nga fa bàyyi loo réglé ci ndigal dana ne ko soo doxoon ak nun ba egg ci place boobu di barkul xibaat danañ dox ànd ak yow wallaahi soo ne woon dañ xuus géej gi sax dañ ko xuus rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag daal di kontaan daal ne siru wa absiru fa inna allaha taala ne ko leen na armée bi avancé te ngeen su ñoom dig ne ma ñaari nganaay yi ngañaay yi ixdal xusna yéy ñaari yi fokk dañ ci am benn benn ñu leen gañe màng seeni alal yóbbu wala nu am shahada te shahada am da ngay daal dem aljanna mu mu ne leen dafa mel ne maa ngi xool palaat ya yéefar ya nar a daaj dafa mel ne seen fa ñu nar a tëdd nar a meelu fa dafa mel ne maa ngi koy gis fii tamit dañ ci jële bind ci ne ngannaay bi gën a rëy ci jullit boo xam ne du tàggoo boo xam ne situation yi bees bees mu daal di mën a comporté wu ànd moom mooy al iman ndax xam nga mbir yi ni muy soppi ko du ko yëg bi day jékki-jékki yow ba nga yëg ci aéroport waajuloo woon dara mais mën ngaa jékki-jékki di fekk la soo xam ne da war a comporté woon la muy bokkul li nga wax bu jékki jekkoo rek li ñu bëgg a dal ci suñ kaw ah léegi da ngay daw dama ñëw woon pour xeex ñëwoon pour déglu waxtaan kon gars déedéet da war a adopté wu ànd ak moom man a gaaw adaptation bi saaba yi doon adopté wu xoole ni ñu adopté woo saa si dañuy génn dañ jóge leneen ba ci yoon bi ñu ne léegi xeex am mais dañoo daal di am adaptation boo xam ne mel na guerre rek moo leen tax loolu nag mooy al iman mooy li nga xam ne moom foo ànd fa ak moom mais su fekkee sa ngànnaay matériel rek la matériel ba bis boo ko fa bàyyee wala mu sori la duutoo ñeme waaye mooy li jiitu iman mooy li jiitu naa yor jullit ñaareel ba da nga ci gis ne njiit itam war lay diisoo ki mu ba kenn jëlal sa bopp sa engagement engagement personnel bi yaa ko jëlal sa bopp xam nga mënoon naa jékki-jékki ne ndigal li mooy dañuy guerre bañ leen laaj seen xalaat waaye kenn ku nekk wax loo na la ba nga jëlal sa bopp sa engagement te nit ki lu mu jëlal engagement mooy gën a diis ci moom fuuf loo xam ne dañ ko ko obligé pour développer ah yonent bi alayhi salaam dal di commencé nag di jëfandikoo pexe geeram loolu itam jullit ñi war ca bàyyi xel bu baax ci ne fii àdduna la soo fi nekkee da ngay jëkkoo moyens yi àdduna amul di natt mbir yi moo tax jëkk jéem a fexe def mooy xam arbre su ñaata la ak it ci ban prix pour xam place lañ toll dafa toog ba ay waxtu yu si mu génn ànd ak ñaari saxaaba di doxant dajeeg jóg bu mag ne ko ñun de dañu gën a Xuraysh génn nañu Makka bëgg a daje jeeg mat Muhammad it génn na Madina pour daje jeeg ñoom est-ce que yow wax boobu dégg nga mu ne leen ah ba leen ma leen xibaar yéen ngeen xibaar yéenay ñan góor gi wax leen loolu ne leen yéenay ñan yonente bi alayhi salaatu da ko waaw waxanu li ñu la laaj danañ la tontu ñun ñooy dem mu ne day bu fekkee dab bi ma dégg ne ci lay si jóge makka di dëgg la kon ñu ngi palaas a ngam xam dañoo fa pare temps ñoom dañ naan bis bu nekk nangam ngay dox mu ne bis ba ma dégg na ci lañ départ Makka su fekk loola la kon ñu ngi palaas sàngam Muhammad bis ba ma dégg ne ci la départ Madina su fekkee loola la kon mi ngi palaas sàngam te comme ñu boobu fa la yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekk kon léegi yonente bi daal leen palaas daal waaw ñan nag yonente bi nag wax nu min ma waaw fu ngeen leen góor laaj waaw ñun fu ngeen mu ne ko min ma nun ci ndox lañ jóge tawriya la ndax borom bi moo ne wa jaal min al maa i kulle sey in xay kuy ndox nga jóge wa jaal min al maa sey in xay moo tax mu ne naxnu min maa mu naan maa maa maa wala aw maa maa ba góor gi dawal xalam di dem naan maa ndox ndox rek kenn xamul ndox mu la <laughs> waaye loolu la ko yonent bi sallallahu alayhi wax li mu wax dëgg la te ba noppi itam def na ci ya góor gi mën ta xam ci fu mu jógee bu ne ko mu daal di bëgg a xam ne kon nii la si nga kon boo ko xetal ci wàllu waxin yonente bi alayhi salaatu daf ko am bi ñu ñëwee ba euh, waa Quraysh dañoo ñaari xale yu di leen wutal ndox ci teen saxaabant bi sala lebaloon ñuy roon ñu jàpp xale yooyu andi leen fekk na yonent bi di julli luy dóor xale yi nag di leen fu ngeen jóge parce que boo saxaaba yi ba tey rek ñi ngi jàpp ne Abu Sufyaan roowul waaw ci am xale yi ne leen ci Quraysh lañ ñu ne la déedéet Abu Sufyaan ngeen àndal boo demee wax leen Abu ma yor alal ja ñuy xale yi bu xale yi ne nun nun yi jóge Màkka waa Quraysh yi xeex ak yonent bi ñooñu ñooñu lañ àndal ñooñu leen ndox ñu di leen dóor bi yonente bi sëlbalee nag mu waaru ne leen waaw yéen bu xale yi waxee dëgg yaa dóor leen bu xale yi feneen ngeen bàyyi leen ndax buñ buñ leen dóoree ba dañuy ne loolu ci Abu Sufyaan liggéey ñu daan leen mu ne leen loolu dañuy fen jóge wuñ ci Abu Sufyaan lii mooy ci Quraysh leen a neexu daal di woo xale yu ñëw mu ne leen waa Quraysh yooyu ñaata la ñu ñu ne ko ah xamuñu lu ñu toll de mu ne leen ñaata lañuy rey ci ay gëléem par bis di ko lekk ñu ne ko daal lekk ñu rey juróom-ñeenti gëléem léeg-léeg ñu rey fukki gëléem yonente bi alayhi salaatu salaam kon ne alxawmu baa bay tesu mi awal alf mu daal ne nit ñi ñu ngi ci juróom-ñeenteel ak ju waaw à peu près daal fexe ba xam nu ñu toll bañ ne ko daal lépp danañ rey juróom-ñeenti gëléem wala ñu rey fukki gëléem loolu la ñuy dundi par bis loolu la ñuy loolu la ñuy lekk par mu daal ne kon ñu ngi ci diggante juróom-ñeenti téeméer ak jur dal leen di laaj ñan ak ñëw ñoo ñëw ñu tuddal ko kilifa yu mag yépp mu daal di wax saxaaba yi leen makka sànni na leen aw ratam makka la mu gën a foog sànni leen ko tey ñooñu su ngeen leen gayee l'islam dana am ndam mbokk nga gis def itam war nañ fee jàng bindu al axsu bil asbab maanaam di jàpp ci sabab yi bañ rek lépp xam ne dañ koy dene lépp rek dafa dellu ci dañuy làmbatu rek nu mu dikkee baax na waaye ci àdduna da ngay jëfandikoo ay sabab mooy nii yonent bi alayhi salaam def fexe na ba xam fu arabe ba toll fexe na ba xam lim ba ñaata la fexe na ba xam itam ñen ñoo nekk ca biir mbooloo moomee ci foofu nag suñu boroom tabaraka wa taala daal di tàng wàcce ndimbal mooy dafa daal di taw taw boo xam ne dafa doon taw bu yem ci fi jullit ñi nekk waaye fa yéene nekk moom taw bu méttee méttee métti la moo tax borom yunazzilu min as-samaa'i maa'an li yutahhirakum bihi wa yut'iba ankum rijsa as-shaytaan wa li yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdaam mu ne yàlla wàcc na ci yéen ab taw def leen di laabal te itam day dal li seytaroon a dugal ci seen xol yi ci ak sikki sàkk te itam day gën a dëgëral di xol te itam day dëgëral seen i tànk maanaam suuf si dafa noot su xawee taw taw boo xam ne dana xaw a dëgëral suuf si ba ngeen mën cee dox bu baax loolu day gëral euh, seen taxawaay ci kaw suuf si xare boobu moo tax suñu borom tabaraka wa taala toujours mi ngi ànd ak awliyaam moom ci ndimbalam ci leen di sàmm moom la wax ne yaa ayyuha alladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutaqdamukum yéen ñi gëm yàlla su ngeen nekkee ci luy dëgëral diine yàlla ci suñu borom tabaraka wa dana leen may ndam dana leen dëgëral te dana dëgëral seeni tànk naka noonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam nag daal di dox ba ñëw ci Badar daal di wàcc ci benn paas parce que bal place bu ñu xam ku ñuy wax Xubbaab ibnu Munzir ne ko waaw yonente bi fii nga wàcc place la boo xam ne yàlla moo la fi loo bu fekkee yàlla moo la fi wàccaloo lay na an nataqaddamahu wala nataaxar an kon sañu ñoo avancé sañu ñoo retard dañoo fi nga xam ne fi la la wala ndax dug wax yu waaye pexey guerre rek la yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bal huwa rayu wal xarbu wal makir mu ne ko déedéet dug wax yu fii dikkagu guerre rek moo tax wàcc mu ne ko nag fii du place mu ne ko laysa bi man si saxaaba boobu wax ko lool ba nga dem foo xam ne dangay ngay jege ndoxum badar bi badar kan ba pare dem bëgg su ko wàcc ba nga xam ne teen bi ñoo ko yore su ko defee yeneen siyaal yu ndaw ya fa nekkoon yi ñu ngiisal leen sakk leen su ko defee ñu daal def tabax mbax ne ci def ndox mu ñuy naan su ko defee ñun ñu am ndox mu ñuy naan ñuy xeexal duñ am ndox yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko laqad asharta bi ra'yi ne ko joxe nga xalaat dëgg na gis nga kon foofu itam bir gi fi bu am solo mooy ne njiit li bu mu wéyee xalaatam rek rawat rawati surtout bu njiitul diine xalaatam boobu mu bëgg koo jox akosia maanaam bu koo lii ak diine ji bëgg a du lu war a corrigé ndax gis nga mu ko laajee ne ko ak wax yu la dana ko du wax yu fii ne di bëgg diine la su kooku baatil la ci baat la ko xam war naa leeral nit ñi ne loolu du baatin samay xalaat dong na war naa tàqale ay ak itam euh, diine ji muy dund maanaam du jàggi ni position boo jël rek la wér na ci diine am na yoo xam ne moom sa xalaatu bopp boo ko jëlee am aaya amoo ci xadis amoo boobaa da nga ko war a leeral nit ñi waaye soo dee borom xamu diine nag dañ position boo jël bu nekk boo ko waxee boo ko nga ko ci aaya wala teg nga ko ci xadis su ko defee kenn du ñemee corrigé loolu dafa matal di leeral ñi ngay jiite parce que soo xasee jiite nit la xam-xam dañ naa kooku kay lu mu wax moom am na fa gote lu mu wax rek te fekk na mën naa xam ne ci xalaat ko teg su ko defee kon ngay bañ di laxasu ci loolu ñu wax de itam lu mu ne fu mu ko teg ba doo nangu ku la ko risi suñ ko dalal ko lii kat dugg waaye sama xalaat rek gis nga bi mu ko joxee da koo nangu kon njiit itam war nay jariñoo compétence yu ñi nga xam ne ñoom la jiite bu mu leen xeeb ku mel xet mais li ñu am ci expérience boo xam ne ñoom am na koy booleeg li mu am ci ko jariñoo war waaw ma ne ku jiite ñi nga jiite ñëpp fexeel ba kenn ku nga xam li nga xam ne moom la mane nga di ca jariñu wala su ko profité nga di ko nangu loolu bokk na ci bind yi nga xam ne war nañ ko jàng ci xeex xeex ak mbooloo moo xam ne mat nañ la ñett yéen ñetti téeméer ngeen ñoom ñuy junni waaye yàlla dafa la seeni xel ba dañoo wax nañ sax dañoo gént ñu ci bari dañoo gént mel ne kuy ak seen soxna ba sax am génn ci ñoom moo tax taw boobu yàlla wax pour setal moo tax mu naan li yu taxirakum bii pour ñu am lu ñu set wecc li yu taxirakum bii woyu si ba an kum risal fay ba xam nga koy def nelaw yu neex a neex a neex ci la ci la ci la loolu di dala nit waaw ci koo xam ne suba ngay jar moo tax yàlla moo mën a taxal am xel nga xam ne moom kon seen mbokk yi kawe lool lool lool lool te bokk na ci guerre li lay dimbali mooy moralu ñiy guerre seen moral yëkkati xam ngeen ne si ñuy guerre ci média yi yaru média yi bari na loolu lu ñuy joué ci jéem a wàcce moralu ñi nga xam ne ñoom la ñuy geral waaw ba tax suñu leen rayalee téeméer ñu ne ñett lañ ca blessé fekk rey nañ boo demee téeméer bu ñu reyee ñoom fukk ne rey nañ ñaar téeméer ngir bëgg seeni nit seen xel dal loolu ñii guerre jamono yi dañ koy jëfandikoo yonente bi moom nelawul guddi googu moom dafa dem ci benn garab di julli julli di ñaan suñu borom taala di ko ñaan mu defal ko ndimbal defal ko jullit ñi ci daje gi nga xam ne moom la bëgg a daje ak mag ah, bi nga xamee xëy nañu nag ba war a dajeeg ñoom yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa rangale saxaaba yi ñuy sàppe ñu sàppe rang muy dox nag bi jubbanti sàppe yi yor benn bant boo xam ne bu ñaw la ku ñuy wax Xusayya moom dafa xaw a génn sàppe bi tuuti naan naan ko nii naan ko delloo tolloo la nit ñi mu daal ne ko gaañ nga fii ci sa bant Xusayya loolu yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko sa bant bii ngay randale nit ñi jam na ma ci biir kon nag damay fay kanamu saxaaba yi fa aqit ni aw jaxtani fa aqit ni yonent bi alayhi salaam def damay daal di ci biiram ne ko fayul ne ko fayul bi mu ko waxee loolu rek daf koo daal di tatafur di foon biiri yonent bi bi da ko waaw lu ci lii mu ne ko yaa ko léegi ni bëgg sama yaram sa yaram wi lañ ma laal yonent bi alayhi salaam daal koy ñaanal aw yiw waaye foofu itam gis nga bind bi nga fi jàngee mooy maandu goo xam ne ki jiitu da koo war a maandu gis nga bi mu ne ko tooñ gaañ nga ma ku toll na yonente bi alei salatu salaam jiite xam nga ñu yi kenn ñi moom da wax tak seefan naan ko naan ko naan ko gaañ ko salawati ni ngeen ne oron ba dégg di war a war a ger ah waaye yonente bi alei salatu wasalaam daf koo wax ne kon fayul daal di yëkkati mu jox ko bant bi bi yoroon de ko fayul mu daal di tasafu yonente bi alei salatu wasalaam loolu itam nga gis ci kon mu yonente bi alei salatu wasalaam ak ni mu tollalee boppam ak ñi ci cër ko yàlla tax ndax borom bi moo ne ko waxal ne innama ana basarun nit laa téen waaye yooxaa ilay dañ may wax loolu itam bokk ci li tax njeexeenu mooy mooy ni muy bëgg a yëkkatee boppam ci kaw nit ñi ndax diine mel noonu xam nga diine dafay mbirum sa tabaraka taala bu ñu la ko jiita day daal di rëy ci bëti nit ñi wàcce waat sa bopp waaye nit ñi moom duñ la ñemee wàcce duñ la ñemee wàcce rawatina ñi xamul ndax dañuy bañ a wax waxin we wala dafin woo xam ne sañu ñu ko fekk day naqari yàlla bu boobaa moo tax ñoom dañ lay wax fu mu joxe yow nag yaay wàññi moo tax ngir ci alquran yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom naan ko waxal nangam leeralal ki nga doon qul laa aqulu lakum indi xadullah waxuma leen ne maa yor tëdd yàlla yi wala alamul waxuma leen ne xam naa liy xew suba wala aqulu lakum indi mala waxuma leen ne malaaka laa waaye in attabiu illa ma yuuxaa ilay man daal damay topp rek li ma wax waaye bu dul loolu moom nit laa comme yéen gis nga mën a dominer sa bopp ba nit ñi téewul itam nag faw soo diini ji itam na nga mën koo doxal te yow doo ca nekkaale ca biir yow moo tax mu ne ma waaxid fastaqimo ilayhi benn buur ngeen am yéen ñëpp dox leen jëm moom ah yonente bi alei salatu wasalaam nag leen bu leen tàmbalee xeex li fay joxuma leen digal ki nga xam ne moo njëkk a tàmbaleex ba bokk si yi ci yëfar yi mooy ku ñuy wax al aswad ibn abdul aswad al maxsuud da doon waaju dër ju naqari deret ne daal ndox mee jullit ña yor fokk danaa ca teen dee nga ñu ñoo ko yore fokk danaa ca naan la asrab da min xawdihim aw la uhdina ko danaa ca naan wala ma màbb ko aw la amootan na duuna ko wala ma dee bala ma caa yegg yooyu la teg dal di waaxu rek jëm ndox ndox ma bi mu yegg see xam sa tam abdul mu abdul moo ko dóor jaasi dagg genn wàll bi teewul muy jéem a bër bi rek ndox ba bëgg a daanu ca biir ndox ma am sa daal di beneen dóoru jaas yi mu daal faatu foofu loola moo njëkk a tàmbali bu mu ko defee nag di jàmbal di gën ci Quraysh ku ñuy wax Utba ak Shayba ñoom ñaar ñoo bokk ba ak ku ñu wax Walid ibn Utba ñoom ñaar Rabia amoo leen jur mooy Utba ak Shayba Rabia leen jur ak ku ñu wax Walid ibn Utba ñu génn daal war seen i fas taxaw sàddaan corps à corps daal kennoo kenn ñu kennoo ko am ñett ñu génn waa lansaar awf ak muawwad ak abdullah ibn rawaha bañ leen xoolee ñu ne leen waaw yéen de ñu baax ngeen ay la ngeen itam waaye suñuy bàyyi soxla ñi nga xam ne ñoom ñu ne bokk dëkk suñuy mbokk ñooñu lañ soxla yonente alayhi salatu wasalaam daal di gestu ali ibn abi talib gis nga mu lay ci ki gën a jege ci moom xam nga ñu bare bare la loolu duñu bëgg seen mbokk ci waaw rawatina guerre yi léegi sax xam nga suñu gën a mag xalaatuñoo dem ca guerre ca commandement nekk waaye dem ca borom ba dëgg dëgg dëgg xeex buñ ko def te àll yi généraux gën a bokk yi ñu gën a sëci guerre mais téewul mu bi ndax moo ko ci gën a jege ci ak mbokk daal di wax xam tey mu jóg gis nga xam tey itam di bàyyi taxaw daal di wax Ubaydatu bnul Xaaris ne leen jóg leen aywa comme yéen ñett jóg leen ngeen dajeeg ñoom Hamza ak Ali ñoom ka nga moom la ñu songool taxawuñ daal koy élim saasin dañoo tànkoo rek kii day dawale tam fële kii la dafa rek ñu daje pënd bi ne ko bu bi wuree rek ñu xool gis ko daanu ci suuf waaye Hamza ak moom dañoo daal di éliminer ki nga xam ne moom lañ leen boole la Ubayda nag moo ki mu dajeel ñaar kenn ku def dóor sa borom dafa blessé sa borom Hamza ak Ali daal di jekkali yéefar bi daje woon ak Ubayda ñu yanu Ubayda ci benn tànk waaye juróomi fan la rek teg moom it shahid loolu moo di guerre moom dafa shahid moom loolu itam jëli guerre bi tam jullit ñi kenn ku ne war ngaa am sa préparation personnelle ko ci mbooloo mi rek waaw xam nga ñu bari suñuy dem dañu ne am man gaa laa yaakaar rek naa duggaale ci mbooloo mi waaye sefeet kaay jàkkaarloo xam nga lii lu garaaw la mat nañ ñetti téeméer waaye ñu ne ci sefeet Aliou kaay jàkkaarloo yéefar bee yàgg moom képp ngeen def face loolu tey fi mu ne ñu bëree bëri koo xool ñu àndandoo ci mbooloo mi ñëpp mën nañu coow waaye koo ci génne woon ne ko waa attaqué ko ah déet moom man nag ñeme woo ko man képp man képp moo ma jikki boo tax kenn ko dafa am sa formation personnelle boo xam ne du bokk formation mbooloo mi dañ laa war a ba nga am sa compétence bopp nga doog a ne composé wu ci biir mbooloo mi waaye mbaa mbooloo waggi gars yi rek laa yaakaar mbooloo mi laa yaakaar bu mbooloo mi baree daal la ca seen bi di coow ak a wax ak di xeex tax waaye da dee kenn kenn wala mu nar a néew moom ah dutuma ca mën a bokk loolu wóoru yonent bi salaatu salaam nag taxaw nag di jubbanti sàppe yi nag di ñaan naa allahuma ajid lii maa waxatta nii yàlla la nga ma digoon tey nag waxtoom jot na allahuma unziduka ahdaka wa wahdaka allahuma tuhlik hadihi al isaba al yawma la tubat allahuma in chita lam tubat baad baad yow mi abad mu ne yàlla soo bàyyee ba kuréel bu néew bi alk kenn duutu la jaamu bu la ne kenn mën na laa ba di jaamu kaw suuf mooy soo bàyyi ñii la gëm ak li ñuy néew néew ba ñu am ko ba jeex mu continuer di yàlla làmbaayam gi mu làmbaayoo di lang abubakar di ko jël di ko dellu ay wakam naan xas bukar xas bukar yaa rasulallah yonent bi alayhi salaatu mu tuuti jaayee ko tuuti mel na koy nelaw daal ne ko absir abubakar ataaka nasrullah ne ko ndimbalul yàlla ñëw na ni ko jibril a nii jàpp ci googu fasam ma daal bir doomu fasam dal ni ci babul arish muy mbaar mi ñu ko defaroon parce que dañ ko defaroon benn mbaar boo xam ne mooy man maa de guerre dalay toog moo tax ali ibn ali mas dañ ko wax ne ko yow yaa gën a jàmbaare mu ne déedéet Abubakar mu jàmbaare mu ne ci bar bi ñu defee arish boobu dañ ne kan moo fi nangoo nekk ak yoon parce que yoon xam ne ne mooy ki nga xam ne moom lañ gën a ciblé yéen bu ñu mënoon a wëri fekk ko fam ne dañuy dem ñibbi moom ñi ñetti téeméer yi ci def am léegi nag ku nangoo nekk ak moom foofu moom moo gën a nekk dana toog yonente bi alayhi salaatu wasalaam te ku ñu ma fekk dañ lay éliminer waale comme moom mu ne Aboubacar nangoo toog Aboubacar moo ne moom moog yonente bi buy wéttali yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax Aliou moom ma demoon ci biir jàppale ne ko a moo gën a jàmbaare waaye loolu ci seen mest ak ku ci nekk na muy yëkkatee loomam bañ a gis mbaaxi boppam la ñoom noonu la mel yonent bi salaam daal di génne sayuhul jamu wa yuwalluuna dubur ne mbooloo mii des na leen gañe te war wane gannaaw daw loolu itam bind gi fi boo xam koo jël mooy ne lu ñu sukkandiku sukkandiku ci stratégie de guerre buuru ci warut a doy rek ñu bañ a bay ñaan nag maanaam bu ñu jàpp mbir yeeg ay tic tac ak i organisation kese kese kese bu bëgg ci génne ñaan xam nga ñaari càggante loolu yëpp day dal lenn ci jullit day am ñoo xam ne ci mbég lañ bëgg a sukkandiku ba duñu organiser am na ñoo ñuy organiser itam ba mel na léegi ci seen war a ne daanaka mbirum yàlla nekkatu ci waaw ñaar yooyu benn baax na nga organiser ni nga war a organiser programme ni nga war a programmer waaye teew na nga delluwaat ci yàlla nag xam ne ndimbal nag wa man nasru il min indillah ndimbal moom ci yàlla dong la mën a moo tax yonente bi alei salatu sax organiser ba pare nag guddi googu daa julli di ñaan borom bi ca la leen wax ne nag wallati nafsi bi yadi laa yuqaatiluhum al yawma rajulun fa yu saabiran muxtasiban muqbilan qoomoo ila jannatin arduha as-samaawaati wal ard loolu la discours ci kanam xam ne bi ñu taxawee yéefar yaa ngi la taxaw jullit yaa ngi àppe ñoom yakarlu yonent maa ngi giñ ci ki nga xam ne sama bat mi ngi ci loxoom kenn du xeex a tey muñ wane kanam bañ a wane gannaaw lu dul ne borom bi tabaraka wa taala dana la tabal aljana soo ci faatu dal na gaa yi jóg leen jëm ci àjjana joo xam ne moo gën a yamaan ak suuf saabu ba tuddee Umayr ibn al-Hammam bant ne baxin baxin askay askay dox doxiinu doxiinu pepp mais la kuy défilé ci kanam rek yonente bi alayhi salaam ne ko bii doxin day yàlla bëgg ko lu dul ci place bu mel nii waaw ne ko doxin bii nga dox yàlla ci place bu mel nii bëgg place boo xam ne ñaari ngi jàkk ngay pant ci seen diggante ah kooku kooku jàmbar dëgg waaw waxuñu rek ngay pànt ci boo xam ne moom rek da nga fay moo tax mu ne xiin wii yàlla ci rek la ko gërëm ne ko lu tax askay askay mu ne ko xanaa yaakaara bokk ci àjjana jooju nga wax bokk ci ñettee tab daal di génn ay tàndarma yu mu façon passé di ko lekk ba yàgg mu ne daal su ma fi toogee sax ba tàndarma yi jeex te demut jana kon kon tardé na daal di xalaat samay rek daal di ja attaqué yëf bi daal di xeex ba am shahada Euh, daal di bokk ci ne dañuy tàbbi aljana foofu tam nga jële fi bind kon ci ne jullit bi war naa yar boppam ci àllaaxira gënal adduna àllaaxira gënal ko adduna xam nga kooku bi mu déggee yonent bi alayhi salaam ne koomoo ila janna jóg leen jëm aljana tànn bi ñu yoroon di ko lekk ndax de lekk ko ba mu jeex sax temps bi day yàgg ngi ne loolu euh, ngëm gu ma sëkk sëkk sëkk moo ko mën a moo ci mën a poussé nit loolu itam ni da cee war yar boppam mais su bëggee adduna ba ëpp adduna bu lépp lu la koy xañ day jot yow te borom bi naan inna alladina laa yarju liqaana wa radu bil xayaati dunia wa tma annu biha radu bil xayaati dunia dañoo gërëm adduna dafa neex ci ñoom wa tma annu biha ñu am ci ilmi inaan jaaxaat adduna daal baax na nii mu ne waxum an ayatina xaafilu ñooñu dañoo am xàggante ci sama aaya yi xamuñu li alquran di wax xamuñu la borom bi tabaraka wa taala digge ëllëg ci aljanna ci xarab badar boobu suñu boroom tabaraka wa taala yabal na ay malaaka yoo xam ne dañ doon xeex wax dañ ne ci xarab badar rek nag la malaaka yi xeex yeneen xare yi ci des malaaka yi danañ ñëw waaye dañuy dimbale jullit ñi moralement rek waaye du waaye su leen jullit ñi xoolee dañuy dañ leen di jàppe ay nit gis mbooloo mi bari lool seen xel dal waaye ñu xeex waaye ci badar nag moom xeex na moo tax Abdullah ibn Abbas nee na am na ne waaye boo xam ne dafa topp ci benn yéefar di ko dàq nee na mu dégg benn yar dal ci kaw yéefar boobu neena na mu xool gis yéefar bi jaaxaan ci kanamam faam te nee na mu koo laal nee bi mu ñëwee wax ko yonent alayhi salatu wasalaam mu ne ko sadaqta zaaka madadu samaati salisa mu ne ko wax nga dëgg ndimm malaaka yi jóge ci asamaanu ñetteel bi kooka la bokk mbooray kopp daawud almasini ne man léeg-léeg ma topp benn waay ci yéefar yi bëgg koo jaati waaye damay jekki-jekki rek dafay watte ci sama kanam ne ma xam ne am na keneen ku ma jiitu ci rey ko waaye man du ma ko gis kon balaa kay ñi ngi foon borom bi naa leen fadribu fawqa al a'naq wa minhum kulla banaan balaa kay dañ doon dóor borom bi dañoo dañoo xamul woon kuy rey nit foo koy xamuñu borom bi ne leen ci loos wi ngay dóor fadribu fawqa al a'naq dóor leen ci loos kay dañ leen a jàngal nu ñu te di bokk al ana parce que ñoom nit dafa ñàkk solo ci ñoom xamuñ ñoom foo foo koy dóor borom bi dañ dóoral ci loote rek wadribuhum kulla banaan dalika bi annahum shaqqu llaha wa euh, Abdurahman ibnu Awf nee na ci bi ñu nekkee ci sàppe yooyu nee na dama gestu sama ndoor gis ñaari xóor yoo xam ne amul daal ñaar fukki at nga gis itam xale yi ni ñu jàmbaare woon ci xare ni ñu wuute xale yi léegi xam ne yar ci ngëm yàlla nee ñu ñëw ne ko yaa am maanaam yow suñ papa dañoo wan kan mooy jaxli xale yi xale ñoo ñëw ci Abdourahmaan Awf ne ko dañoo bëgg a wan Abu Jahl nii mu ne wow yéen lu ngeen mën ci Abu Jahl taw ne Abu Jahl mooy jiite mooy seefu armée xale boobu mooy général gën a mag yéen xale yi ngeen di ko laaj ñu ko dañoo dégg ne dañ ngañ ñi yonante bi sallallahu alayhi wasallam kenn ku ci ne ko bu ma ko gisee du ma tàggalikoo moom li feeg ñun ñaar ki ci gën a gaaw a dee benn gaaw a dee moom man ma dee wala mënut maa dee moom dee atta al ajal min na nee na ma yéemu ci ñoom nee ma joxañ ne leen kële la nee na ñu daal di ñëw rek daal ko yëkkanteeg seen i jal si ñoom dóorandoo ko seen i jal mu daal ñu daal di ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam kenn ku ci nekk nag ne ko maara moo jox leen ñaari xale yi mu ne leen wan leen ma seeni jaasi ñu wan ko seeni jaasi kenn ku ne jaasim mu ne ay xatala yéen ñaar ñëpp ko rey yéen ñaar ñëpp ko rey ñooñu Muaas ibnu Amr ibnu Jamuh ak Muawaz ibnu Afa nga gis kon ndaw yi njàmbaar seenu mbaar ñu daan wane it toolu xare suñu borom tabaraka wa taala waaye duñ ko ci agressé ay nit lañu wane ci ay sport yoo xam ne euh, amul gën naka noonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñaanee dafa tibb suuf sànni suuf soosu wax borom bi tabaraka taala daf koo eggale ci yéefar yi kum càllar rek fàkku nga waaye nag mu ne yonente bi defoo ko de wa ma ramata walakin allah ba nga sànnee sànni woo ndax boo sànni woon rek yow suuf si dong la yem waaye yàlla moo ko jàllale kon loolu yi dañ ciy jëli ne kon ndam bu amee itam delloo suñu borom tabaraka wa taala bu doon fii dañu daal di bëgg a bàkkoone ak wilaayam la leen ray lépp waaw daf leen a joxañ daf leen a xëpp suuf rek ñu daal di kon lépp loo xam ne itam yàlla may na ko ku baax mu jaara ci moom ci karaama bu dee wàlliyu la nañ ko delloo ci suñu borom tabaraka wa taala waaye di ko ko taggeem wala ñu ko nañ ko delloo suñu borom tabaraka wa taala moom doy na ko rek fixé yàlla tànn gi mu ko tànn la ci moom loolu mu bëgg a def waaw yàlla li mu bëgg a def Ah, daf koy jaarale ci nit koo xam ne wàlli yu ku baax la mu jaara ci moom kéemtaanam bi nga xam ne moom la bëgg a wane waaye nag tekkiwul koo kooka moo ko defal boppam dafa mel ne eh, sa télévision bi ci sa kër rek image bi nga xam ne moom la ko télévision bu mag ba di yónnee amu ci sa télévision boo ko seetaan mënul ne image tàngam lay recevoir wala dama ko recevoir lu ñu ko yónnee rek mu recevoir yow itam noonu écran bi yàlla nga mooy yónnee ci yow bu ko neex kon nag su image bi feeñ ci yow ñu di la ko nawee yaa jàmbaare yaa génne image sax su image bi demee ndax mën nga koo delloo fi wat doo ko mën doo ko mën la ko ci yónnee loolu mooy karaama loo dégg ñu naan waaju baax def na ko du caa génne moom suwaam la bu ko nekkee def bu ko nekkee bañ a def mais yàlla moo ko ca yóbbu bu ko nekkee def ko ca nekkee dindi ko boo gisee saxaaba ñoom daaw ñu xër lool ci sax ñuy faral di bàkk ka mu jaar ci moom dañoo xam laral dañoo xam ne suñu borom tabaraka ko maa bu dee fii nag waxuma la sax kalaam am dëgg dëgg dëgg waaye dañuy fent dañuy fent yu bare bare bare bëri euh, di wax ne moom la diw sang def fekk na boo vérifié wax deful waaye même bu fekkoon ne def teewul muy simple nit suñu borom tabaraka wa taala boo ko jaarale ci moom rek ndax li mu ko wax maana li basar an yutiyahu llahu alkitaba wal xukma wa nubuwa summa yaqula li ibadan min dunilah yàlla cër boobu la mën a jox génnewu la nga nekk jaamu yàlla mayu la itam oriyow nit ñi nga nekk seen feef nga nga nekk seen feef déedéet ak cër boo ma de na jaaduwul ci mel mi nekk ma wàcce ci moom téere wala ma def ko yonent mu dal nañu koonoo ibadan lii min dunillah nekk leen samay jaam yi waaw ndax gannaaw man la yàlla jox cër yi yéen nekk leen samay jaam waaye walakin koonoo rabbaniyin dafa war a utiliser li ko yàlla jox ci xam-xam ak waax def nit ñuy jaami yàlla waaye du leen def jaami boppam euh, bokk na ci bii tam ñu gis ne mbokk ngëm yàlla kenn ko ne war ngaa yar sa bopp ba mu tiim sa mbokku askan maanaam li mbokk yi nga bëgg nga xam ne ñoom askan ni nga leen bëggee war ngaa fexe ba li ngay bëggee sa mbokk yi nga bokkal ngëm yàlla moo koy gën a fort te mbokk yi nga bokkal askan ku ci gëmul yàlla tam nga fexe ba débranché wu ci moom loolu xew la ci xarab badar Mus'ab ibn Umayr xam ngeen ne woon euh, moo jiite woon at am na benn frère am boo xam ko ndey ak bokk ci yéefar yi ñëw mu daj benn waaye mu jàpp ko prison ku nekk jullit jullit bu ko jàpp prison Mus'ab ne ko bu baax bu mu la rëcc de yaayam bari alal la dana ko mën a fay frère Mus'ab boobu ne Mus'ab loolu ngay dénkaane ci man waxoo ñu bàyyi ma lu may nga daan déy ko bu baax Mus'ab ne ko yeboo sama mbokk kooku la téye sama mbokk waaw innahu axii duulak kooku la jàpp téye la moom laa a bokkal ci yow kon na la bu baax su ko defee sa yaay da mën a fay lu lépp Abdourahmaan um Abi Bakar Abi Bakar doomam ji ñuy tuddee Abdourahmaan jamono boobu ci yéefar yi la ñëw ci xalaat ba gannaaw bu mu tuubee nag dugg ci lislaam la doon wax baayam ne ko yaa abati laqad ahdastani yawma badar miraaran fa sadaqtu anka ne ko papa jekku naa la loo ay yoon ci xaret badar waaye bàyyeel ne ko xaret badar leen ma toog si boo xam ne li ma lay jekkoor man laa rey Abdourahmane moo ko wax bàyyi Aboubacar Aboubacar ne ko wallahi law kuntu ahda law te ahdafta lii ma tadafta man de su fekkoon ne jekkoo naa la doo ko nettali waaw yow de yaa xam xëy na jekkoor nga ma bàyyi nga ma yaa waaye man su ma la jekkoor foofu yow doo mucc tey moo lay xamal ne kon ñoom demoon nañ ba uxuwatul iman tiim ci ñoom uxuwatul nafa ah bi nga xam xare bi jeex na nag <clears throat> rey nañu ci musrikoon yi juróom-ñaar fukk jàpp nañu juróom-ñaar fukk jullit ñu ñeent moo ci shahid fukk ak ñoo ci shahid ah, bi nga xamante nag jekku nañu yëfar yi nag yëfar yi commencé daw dafa am ñoo xam ne dañoo commencé ñoom di dajale alal ji yëfar yi bari am ñoo xam ne dañoo topp yëfar yi li na gën a dàq bañ gën a daw bi armée bi jeexee nag ñi doon dajale nag noonu leen dajale noo ko moom coow naaw nag ci wàllu alal ñi leen dàq yi ni leen yéen bu ngeen ko talee dajale ñu topp ni di leen dàq ñoo wàññi ko moo tax ngeen dal ko dajale ñe doon gar yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekk ni leen lu itam nun ñu toobati yonente bi di ko garde itam ñooñu buñ ko fi bàyyi woon yéefar yi doxee du gannaaw fekk ko fi mu nekk itam kon musiba xew kon tey nun ñëpp ko bokk ah la andi seen diggante ci la borom bi wàccee loo nekk anil anfaal al an nasl loolu nga ne moom la ñu jëlee ci xare bi waaye qulil anfaalu lillahi wa rasul xam ne ne mboolem lu ngeen jëlee ci xare yàllaa ko yonente boo ko moom wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna al-khumsa lépp lu ngeen màng ci alal ci ay yéefar bu ñu ko xaajee juróomi xaaj benn bi yàlla moo ko moom akub yonentam maanaam dañ koy def ci soxlay lislaam yonent bi moo koy jël waxuñu moo koy lekk waaye moo koy jël def ko ci euh, intérêt yi mooy intérêt lislaam li ci def nag ñu ko séddale nit ñi kon noonu la borom bi tabaraka wa taala réglé problème boobu naroon ci seen diggante euh, xare ba ba mu jeexee itam ña xam ne lañ ca jàpp ci ay ton mat nañ juróom yonente rey nañ juróom juróom ko la juróom yonente alayhi salaatu dafa dajale saxaaba yi lan moo ci seen xalaat omar ko kazabuuka wa arajuuk id anaqahu ne ko ñii dañ laa weddi woo génn la makka taggal seen ñoom ñëpp abdullah ibnu rawaa ne ko yaa allah antajin katil xatab ne ko xur wii nga toll fii mu nekk nii àll bu bari matt la fa adrimhu naaran taalal matt summa alqihim fiiha nga sànni leen bépp bi ko abbas déggee abbas day la ci yonente bi alayhi salatu te booba mi ngi ci ànd ci yëfar yi ñu ko ci mu ne ko xata allahu rahimak yow yaa bon ci wala fekk nga naan nan tawara li nga wax de baax Abu Bakar ne yaa rasulallah itratu ne ko ñu say mboole wa asluka wa xawbuka say cosaan lay soxla tajaawas an bu baal leen yastanqisuhum llahu bika min annaar yàlla mën na leen a musal ci safara jaarale ko ci yow ci baal gi nga leen baal mën nañoo dem ba tuub mën a mucc ci safara bu ëllëgee yonente bi alayhi salatu wasalaam da ngay jël ci ñoom ak jot waaw xëy na baal leen foofu leen ma gratuite ñu ñibbi moom dana yomb mais dañuy jotu kenn ku ne soo joxee nang ci alal ñu bàyyi la nga dem yonent bi salaam nag lu ñu ko tànnaloo day seet la ca gën a digg doomu mu jël ko xam nga gi naan daggal seeni baat kii ne taaral aw safara tànn ci kii ne ko laaj leen alal lañ dem mu ne kon daal laaj man naa tànn ah nekkete laaj gi nag moom gën suñ bortaka la bëggul lool bi yonente bi alei salam defee loolu ci ëllëg sa Omar dafa ñëw rekk yonente bi alei salaam toog mook Aboubacar ñuy jooy Omar ne leen waaw lu leen jooyloo wax leen ma li leen jooyloo su ma mënee su ma mënta jooy itam jooy jooy waaw yonente bi alayhi salaam ne ko day li nu tax a jooy day mooy mbugal mi jege na comme ni nu doon montagne bi jege te bu ñëwoon yow dong yaa ci mucc maanaam li nga wax ne nañu leen rey loola ndekete moo doon ndaxte gënal lii mooy première guerre bu ñu dajeeg yéefar yi jekkoo bu ñu leen jekku bu tax ndax yéefar yi ñëwute ëpp bu ñu commencé def ay yéefar position day mel ne dañu tax a jóg moo tax borom bi an yakuna lahu ah te di ko droit de jàpp prison ak taa yusqina fil ard turiduna arada dunia wallahu yuridu al axira dégg maa kaana li nabiyin an yakuna lahu asra yonente bi amul droit de jàpp ay prison prison yi da leen war a rey man a juróom-ñaar fukki yooyu bu ñu leen ca boole woon muy téeméer ak cent quarante bu ñu delloo ah makka bu ko waa makka déggee danañ fit ne rey nañ ci ñoom euh, téeméeri fukk ci la du tare ñu ne rey nañ ci ñoom ñeen fukk rek juróom-ñaar fukk rek mu ne ko balaa nga jàpp prison da ngay bañ jekku lool lool waaye gannaaw lii mooy sa première guerre jekkoo war a góor wut prison yéen nag da ngeen a bi àdduna wala borom te yonent baa ngi ci biir de mu ne ko turiduuna arada dunia wallahu yuridul axira yàlla lim leen di liggéeyloo àdduna taxut alaxira tax néewu leen ngeen der gañe ay nital alal waaye géer leen ngeen faatu dem aljanna wala géer gañe ay nit taxawul dem yàlla ci kaw suuf gis nga kon borom bi tabaraka wa taala bëggul mu ci ba ko doon tàmbali doon guerre doon am waaye bëggul finalité ba itam doon alal xam nga bañ ko lañ ko bu doon bëgg a tàmbalee wut alal la naroon a tàmbalee genn mu ne turi an na saati shawkati takunu lakum wala yurid wala wa yuridullahu an yuhi aqqa bi kalimati yàlla moom bëgg dëgg loolu la leen gerlu bi guerre bi jeexee itam gis na ko mu ne tidduuna arada dunya yéen da geen a bëgg résultat wu guerre bi doon alal résultat wu guerre bi doon alal ngir séddoo ci alal ju dul jeex te dem wallahu yu parce que prison yi bu ñu dee fay alal prison bu nekk fay alal kenn ku ne ne maa jàppoon biton sàngam alal jëm fay maa koy moom loolu bi taxu koo jóg nga gis kon borom bi tabaraka wa taala ni muy jagaasee wut intérêt yi alal ci mbirum diine ndax bari na lool doxiinu islam fi mu ne li ko gàllankoor ay alal ay alal ci yëpp la nag moo xam ci tarixa yi moo xam ci assure yu ci bëree bëree bari la leen dévier alal ci la bokk ba muy doog a tàmbali principe yi dafa leeroon lool neexut kenn nekk ku nekk def sa morom mbokk ndax jàpp ne lu metti lii dala ciy dimbali xam nga lu metti moom danga ciy waaye lu neex moom doo ci bëgg wéttal lu metti moom lu nit gën a ñëw nga ne ndax mu gën a woyof waaw loolu moo tax mbir bu neexagul kenn ku ne da ngay bëgg sa ko wéttal waaye su demee ba commencé ne nag kenn ku ne sa morom dalay commencé xatal ah lii ma nar a seqal kii bu ma fi nekkoon man dong oto bi ñu ne ma bokk bu fi diw nekkuloon moom moom ko man jot ci lay dàqe moo tax kon alal doon loo xam ne ko soxla lool ci daaw bi dañ ko jëfandikoo waaye nag dañ ko moytandiku itam nag bu baax a baax a baax a baax ndax kat mën naa yàq baree baree baree baree bare ci féewale nit ñi ci gàllankoor leen ba effort yañ doon defi dutuñu ko defati kenn da ngay jàpp ne rek da ngaa war a jariñu ci alal ci moo tax gis nga borom ne lawlaa kitaabun min allaahi sabaq la massakum fii ma axastum azabun azim su borom tëkku leen ne leen boon wax joo xam borom bi waxoon na ko ne du leen mbugal yaa ngi fi wa maa kaan laahu li yuazibahum wa anta fiihim yàlla dafa waxoon lool yàlla du leen mbugal yow yonente bi li ngeen bu dul woon lool kon tey moo tax mu ne lawlaa kitaabun min allaahi sabaq massakum fii ma lii ngeen jël ci mbugal bu metti dana leen ci fekk jot ci prison wax na bi nag mën ngeen koo jël waaye bu dul woon ak ndimbalu suñu boroom tabaraka wa taala eh, mbugal dana leen ci jeexal bi Euh, am na juróomi reegal yoo xam ne yu alquran andi la ci sóoratu anfal bi ma yoo xam ne juróomi yaa yoo la si di julli ji la ko andi directement yooyu suñu ko jëlee rek moyen la pour ñu amaat l'islam amaat ndam nañ ko jàpp bu baax juróomi point juróomi yaa yoo la si na amono ci sóoratu yi nga xam ne moo ànd ak guerre bi ci njëkk mooy ak sabaat mooy résistance mën a sax ba taxaw bañ a dellu gannaaw loolu nag day tam nag nga paarew am maa tax loolu nga àndaa itam bu ñu egsee rek dañ lay maasal kon résistance bala nga koo mën day fekk nga waaj wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ñu formé la matériellement waaye gannaaw buñ la formé moralement ba ngëm yàlla gër ñu yar la ci diine ba nga yor aqida leer di jaamu yàlla jaamu yàlla gu dëppoog sa fit daa ci yu ma dante moo lay dëgëral xamuñu ne jaamu yàlla yi day nii tax na ñam mi noonu la lay joxe force am doole ba ci ñam bu baax noonu la la jël yàlla yi di seen doomi noonu lañ lay joxe quwwatul iman ñoom itam noonu lañ la joxe quwwatul iman borom bee kulu min at-tayyibaati la wax ne katan tayyiba ni mu amee ci taam yi tayyiba la amee iman yi tayyiba waaw ya'taqidu kalima tayyiba kalima tayyiba ka sajarati tayyiba ni mu amee ci ña lu nekk xabiis noonu la amee ci taxabaan yi lu nekk xabiisa yoo xam ne soo ko fatee kay lekk ñamul na muy commencé di jeex di jeex di jeex ba jóge fi kay yor pas-pas yu bone feebale noonu lay nekk daif lu jóg rek mu tax gis nga nafiq yi leen pas-pas baaxul borom bi ne yaxsabuuna kulla sayxin alayhim lu yuux lu ne ombre ñooy ci seen kaw la jëm si yaxsana kulla sayxatin alayhim kon asabaat jiitu borom bi ne yaa ayuha alladina aamanu ida laqitum alladina kafaru zax fala tuwalluhum al adbaar aaya si juróom la suratul anfal gis nga del waxaat ne yaa alladina aamanu ida laqitum fiatan fasbutu fasbutu dégg nga bu leen daw de yéen ñi gëm yàlla bu ngeen dajee kuréelu yéefar sax leen bu leen daw bu leen dellu gannaaw te nag waskurullaha la na ngeen tudd yàlla lu bari la la allakum tuflihun te jullit ñi amul dara la wax bu ñu ne ci ab guerre mooy di tudd suñu borom tabaraka bu kenn tudd say maam bu kenn tudd sa njàmbaar bu kenn tudd dara allahu akbar gis nga kon sax jullit ñi nañu sax nañu dëgër waaye li ma ko waxee day fekk fa ne pare la loxoy kese moom mënta dékku mënta mënta dékku musiba bu ma tëm day fekk nga yor pistolet nga yor aw yet wala nga yor waaye taxaw sa loxo kese kooku boo dee damay taxit muutul da ngay mujj sol rek topp ndax ñu woo dara dañu dañ leen war a préparé bañ mën a tax ñaareel ba ak taa mu ne yaa ayuha alladina amanu atiu allaha wa rasulahu wala tawallaw anhu wa antum gis nga ko beneen principe bi ci ci ñu mën am rek wax gannaaw bu ñu amee résistance sax ñaareel dañ am taa taa wax dëgg am njiit ki ñëpp ko il faut war nañu am ku ñu ñu jël koo xam ne dañ koy topp mu ne yaa ngi naan atiu allaha wa rasulahu wala tawalu anhu bu leen dëddu mukk di ko wan gannaaw moom njiit fokk njiit am moo tax jihaad bokk na ci sartam am jihaad ñaari sart mënu am place boo libéré ba pare yonent bi alei salatu bi mu nekkee Makka provoqué nañ leen ba tàyyi mais asbaabul jihaad ma tëgul woon amma bi mu demee Madina ba nga xam ne moom daaru iman la daaru islam foo daaru islam am parce que ah du jaagee ne jamono gañe léeg-léeg ñu bu ñu la gaañee rek fooy ñibbi <coughs> fooy ñibbi wax nga am fooy del ku gàddaay it ñu sonné la la ba yéefaree nga am foo mën a def il faut am territoire boo xam ne da nga koy libéré ba pare ba installé wu ba toog fa. bi fa jógee di attaqué ji di dem si waat ñaar yoonu kee rek amuloo njiit amul walaat loolu boo ko bëggee jihaad ba faw da lay coono ba muy jur mooy ëpp njëriñ ñetteel al ixlaas mu ne yaa ayuha alladina amanu istajibu lillahi wa lirasul gis yéen ñi gëm yàlla suñ leen wooyee booy wuy ji bul wuy ji ngir loo ca am bul wuy ji ngir poste mais wuy ji ngir yàllaa kub yonentam istajibu lillahi wa lirasul ida daakum lima yuxyi waalamu anna yaxlu bayna almar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsarun ñeenteel ba ak sidqu wat mooy dëggu ak matal kóllëre matal engagement yi nga jël responsabilité yi la gàll nga taxaw ci ba mu sëkk bañ a wor bul wor parce que mën nañ laa jox ay responsabilité nga dem ba ci biir nga war a jël responsabilité yi ñu la defal nga taxaw ci ñu digle ko mu ne yaa ayuha alladina amanu laa taxuu llaha wa rasul wa taxunu amanatikum wa antum taalamun yéen ñi gëm yàlla bu leen wor yàlla ko yonent wor seen compte yi ñu joxoon nee na su ngeen ko defee seen bopp ngeen fekk na yéen a ko tey juróom benn ba nag mooy ak taqwa gàddal laa yoon ak ragal yaa ayuha alladina amanu in tattaqu yajal lakum furxaanan wa yukaffiru sayi'aatikum wa yaxlakum wallahu zul fadlil azim gis nga juróom yii yépp mu ngi ci suratul anfal tey aana xam ne ñettali xareb badar ci la ko borom dugal ci la ko borom bi dugal benn mu adressé ko ñu gëm yàlla yaa ayyuha alladina amanu ba jiitu mooy ak sabaat mooy nañ am sax ñaar am taa nañ am ciiri topp foofu nag moom mooy bi ñu gën a manqué le mooy bopp goo xam nañ koy toppee la muy doxal mooy li yàlla ak yonentam digal waaye waxuñu koo xam ne kat day jàppe ne nit ñi nit ñi ñooy alalam ndigal ya joxe gi tere ya joxe yépp ci compte boppam la jëpp kooku njiit bu mel noonu taxul ñu wax kooku moom njiit ci lislaam waaye njiit ci lislaam koo xam ne dafa jiite ngir yàlla tel di dénk leen mbokk jullit yi ñu ragal suñu borom tabaraka wa taala jullit rasuli muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ga mbokki jullit yi ñoo ngi sant suñu borom tabaraka wa taala di ko ñaan tawfiq di dénk suñu bopp di dénk mboolem mbokki jullit yi ñu ragal mooy ko ak lépp loo xam ne digle ko gannaaw loolu mbokk jullit yi am na tawat yoo xam ne feebar bu rëy la bu màgg la bu yaatu la ci suñ société feebar bu rëy la bu garaaw la itam bokk ci feebar yi gën a gaaw ci faagaagal doomu aadama feebar boo xam ne xoolee xeeti nit ñi ñëw na nga gis daw xeet ci mucc boo xoolee ci ñu ko naru bay ay góor boo ko ci jigéen boo ñu ñàkk ci biir boo xoolee gis ñu am ci biir boo xoolee gis ci seen biir ñu xamul dara ci seen biir gis ñu jàng boo xoolee gis ku fokk wàtt nekk ci na ci biir njiit yaa ñu am ak ñu amul yëpp laru